ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy moom jàmm ñi te mooy borom yàlla wàcce xéwal wàcce yërmande wàcce jàmm ci àdduna bi yëpp rawatina sunu réew Sénégal mbas mi ñuy tuddee corona yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke yonent bi nga xam ne comme que dañuy profité ci bésu Ashura muy tamxarit bésu ñaan la jullit ñëpp nañu ñaan yàlla parce que yàlla nag ku ko ñaanul nee na faale wu ma la. doon na wax ne nii astajib lakum ñaan leen ma ma may leen nit nag buy ñaan yàlla moo xam soxlaam yàlla laa ngi yëpp la dégg boo waxee séeréer dégg na boo waxee tukulóor dégg na kenn ko ne lii sa yitte lii sa soxla na nga ko ñaan yàlla ci bésu tamxarit bésu ñaan la euh, ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi mu mel ni am na fi mbokk moo xam ne temps yëpp mooy coow mu ne dafay xar géej gi ñu koy tuddee kunkande temps yëpp ñu ngi koy xaar ndax it nag dafa nekk miracle bu yàlla joxoon yonent yàlla Moussa fan yëpp ñu ngi ci wadrib bi asaka al bahra fan falaqa fa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim mu ne day jël miracle boobu def ko fii ci Sénégal waaye dafa mel ni maa ngi koy suivre mu ne daf koy reporter ba kañ ila yawmi yub'asun fii ba yàlla di fay jant bi du ko def ba ila yawmi din kon xëy na du coow li xëy na duñ dañu nit ñi dañ koo ñaan mais dafa lajj na wax ne dafa lajj jullit boo lajjee da nga naan damaa lajj mais dama ko rapporté du ko def ba ilaa yawmi yub'asoon parce que loolu yàlla miracle bu mu joxoon yonent yàlla Moussa la mu yonent yàlla def ko keneen dootu ko def ci àdduna bi kon léegi kon léegi am naa yaakaar ne vraiment euh, nekk na loo xam ne lii leer na leer na leer na leer li ñuy wax al ana xas léegi dëgg gi leer na parce que coow li bari na coow li bari na Euh, moo tax ma reporté ko li ma leen di wax mooy du ko def ba ila yawmi diin moo xam ñu fekkee moo xam ñu ñàkk fekkee mais du am ba ila yawmi parce que yonent yàlla Moussa miracle la bu ko yàlla joxoon digganteem ak Firawna na dàqu ko yàlla bëgg a génne kéemtaanam wax Moussa ak ay nitam ne leen léegi fa asri fa asri fa asri bi ibaadi innakum muttabaun da jógal guddi nga ànd ak sama jàmm muy bànni Israël ngeen jëm ca côté géej ga Firawna ak ay militaire dinañ leen topp bi na xëyee dafa jox ànd ak ay militaire am topp yonent yàlla Moussa ba ci tefes ba bi mu demee ba ci tefes bi ñii àndoon ak Moussa dañoo tiit dañ ne mais ñun na dina ñu dab te bu ñu dabee dinañu rey Moussa ne leen inna maaya rabbi sa yahdi ni man Moussa mi leen di jox ndigal maa ngi ànd ak sama borom sama borom dina ma jox solution biñ taxawee ci géej gi la ko yàlla wax ne ko fadri bi asakal bahra jëlal sa yel bi nga dóor ko ci géej gi فكان كل فرق كتاودي العظيم منك 12 فوا فوا بونك خيري مانام 12 جوكنا با تولو اسمان سي يونت يالا موسى ترافيرسي ماما بني اسرائيل فرعون لاب بن ميراكل القران ديكو نيتلي با ادنا سوسو با ليغي يالا يونت يالا موسى لاكو جوخون ابار يونت يالا موسى امول كين دوم ادمه بوكو مانا ديف كون لي القران واخ ايوا امنا ني باس لا waaw loolu mooy ñi nga wax bu leen neexee ñu ne maribaas la mais alquran waxuñ ñu loolu alquran def na yetu Moussa ba fadrib bi asakal bahra fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim lii ay alquran la yàlla moo ne Moussa fadrib bi asakal bahra jëlal sa yet wi nga dóor ko ci géej gi mu dóor ko ci géej gi mu toj loolu la ñu alquran wax keneen ku mu neex ak philosophe ak maribaas ak mari hot ak yooyu yëpp seen xalaatu bopp la mais li am solo mooy alquran lim ñu wax mooy Moussa dafa jël yet bi dóor ko ci géej gi géej gi toj mu traversé Firawna bi mu ñëwee dafa lab loolu la ñu alquran wax li ñu alquran wax ñun loolu la ñu gëm kon miracle bu mel noonu keneen ku jóg ne da nga koy def da ngay mujj lajj ku kànde def ne daf ko reporté ba beneen yoon man lay wax ne fii ba yombal xiyam manaam du ko def non du ko def benn jamono amul amul amul amul xam-xam gi amul kàttan ba loolu su amee ñun dañuy weddi alquran su amee dañuy wax ne yàlla du dëgg wala su ko defee dañuy wax ne alquran du dëgg parce que mu'jizatu rasul miracle bu yàlla jox yonent bi yonent rek la ko yàlla keneen ku dut yónnent mënoo ko am kon dafa bëgg wax ne moom profet la wala moom yónnent la moom lu mu doon kon ma yaakaar ne itam loolu yëpp lajj la na leer jullit ñi ne alquran am na ndam alquran wax na dëgg miracle bu yàlla jox yónnent amul benn doomu aadama bu ko yàllay jox ku ëpp maqaama Koukandé ak keneen sax du ko def rawatina ku ñuy wax Koukandé man xaw ma Koukandé coow laa dégg boo gisee ma ciy wax mooy dafa dugg ci domaine alquran dugg ci miracle bu yàlla jox yónnent yi buñ ko xamee ak lañ ca xam dañ koy witi ne du ko def du mënu ko du ko def tey du ko def suba du ko def fii ba yowmal am du ko def parce que mënu ko. su kenn mënu ko def. munta am kenn dootu xar géej gi ko dul yonent yàlla Moussa benn yoon la amoon yonent yàlla Moussa dootu am ba yow maanaam dootu am ba ba ila yomitin dootu am ndax yonent bu nekk miracle am miracle Moussa loolu ci la bokk malgré que bëgg na ay miracle yu bëri lu mat neuf mais neuf yi yet bii ci la bokk keneen dootu ko def. waaw xam nga loolu lu doy war la li ma ko bëgg a yëgal mooy na tuub bu fekkee jullit la na tuub digganteem ak boromam comme que nee na reporté na ko parce que coow li bari na coowal nit ñi coow coow li ko yàllay teg ci kàddu gi moo gën a foofu li ko nit ñi li ma koy conseillé mooy na tuub na dugg néegam jéggulu yàlla subhaanahu wa parce que coowal nit yi jarul ragal yàlla yàlla moo jara ragal te def na coow li tax moom mu fomm ko ma yaakaar ne coow li tax na mais coowal nit ñi sos bi mu sosal yàlla moo gën a garaaw la dougou néegam jéggalu bo fekkee djulit loolu la koy conseillé su ko deful dina am problème wax dëgg yàlla mhm. merci merci beaucoup waaw amul benn nas ben texte bu rot yonent bi ne ñaan ñaan len ñaan gi ci xarit amul mais ñaan mom, nit ki dafa libre su nexé ci bés bi mu xol bés bi mag bi mag, mu formé ñaanam lepp luy soxla mu diko ñaan loolu mom, am solo mais amul ben texte buñ ne ñaan bi, nañ ko ñaan ci bésu tamxarit déedéet mag ñi tëgg nañ ñaan yu bari ñaan bu la neex nag mën nga koy ñaan li am solo li bëgg wax mooy bésu ñaan la nit ñi nañu tënku suba nag la waxuñ tey mercredi mais suba mooy ashura comme jeudi bi mooy tamxarit bi bés bi journée bi yëpp jullit boo wooree surtout boo wooree man ngay tënku jàng alquran man ngay tënku ñaan sa soxla mais amul benn texte bu rot ñu yónnent bi ne ñaan leen ñaan bi mais dañ ko ubbi ñaan la rek lay wax kon ñaan moom vraiment bu ñu ko tënkoon ki ko mënut du ñaan mais ko ubbee rek ne ku nekk na ñaan soo mënee ñaan ci arabe soo mënee ñaan ci anglais soo mënee ñaan ci français soo mënee ñaan ci ci ci ci séeréer li la bëgg a wax rek mooy bésu ñaan la muy ashura muy jeudi bi nañ ci profito ndax xamuñu ndax ren bu déwénee dinañuy fekkam déet su ko defee ñu ñaan yàlla guddal suñu fan faj suñuy soxla wéral suñu yaram suqali suñu réew mu jëm ci kanam lu ñu ñaan rek yàlla ko yàlla def yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siw du jàmmi boom andara Lepaluyan mo yaw lang